de Golden State, et épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial

ndamna wote ke wenum nder yo wote ke we daka keke yo marne pin ke ngeno herna nu marne we mbokna ten to ngeno hernu pin mamat i etit nu marne betuk mbogu ten ad waxanna fe ngel ministre sakna kam saate fe fo wote fe ministre sakna tig gilasa fo ministre sakna tiga ad so pin ke ngeno herna nu marne a sogundo noox a sena fu senera pin ke mbogna teen to mbogeenu pin mamad a njega mal politique ke we na meen wona wote a saay saay tax we na woote fe fiye yetin xenan we ak law gi mu law fépp fu nekk lii di wàllum audiovisuel loole nag moo waral président bu conseil national bu régulation audiovisuel di kuréel gi ñu dénk lépp lu soxal wàllu woowee seqaay jéego moom Babacar Diagne dëgg ma si fii si groupe Excaf Télécom dina kaay jéego yoo xam nag lay xamem te fam mooy xool anam bi ñuy liggéeyee waaye tamit fexe ba ñu lal ay waxtaan gën a rek ñoŋal barabu taskatu xibaar yi. léegi paysage audiovisuel bu baax da nga gis ñëpp am nañu ay convention signé Euh, dañuy ñëpp suñu ay cahier de charge euh, ñëpp dañuy wax joxe seen programme ñëpp dañuy am gris sax seen gris sax commercial tarifaire dañ ko joxe loolu dara amu ci foofu Sénégal kon Sénégal ñi péage bi di doxe amul dara lu ci jub fi mu nekk nii ñun nag mun ñu xëy rek liggéey di wax américain overnight changé ko non dafa def overnight xam nu ñu koy wax ci wolof overnight mooy simlaak saala waaw doo ñëw rek simlaak saala nga changé ko déedéet moo tax ma ne demee ñëw waxtaan ak gars yi ah nañ teg su loo xam ne ci lu baaxul boo def lu jàllul dañ teg su loo xam ne ah lii nga du yoon attention lii du yoon boo xamee li ñu wax nag ñu xool ko ñu toog changé ko moo gën. li ko dooree ci RDV ba accidenté jaara ci DTV ki fi nekkoon kilifa RTS daanaka bawul dara ci wisit bi lii moom Babacar Diagne am nag mbégte ak rafetlu gu mu def ci liggéey bi ñu fi fekk mu gis ne nag nguurug Sénégal soobu nu ngir gunge projet TNT bii soxal walum numérique. TNT euh, di un projet majeur gis nga euh, basculement numérique bi ñuy wax ci aduna bi loolu dafa nekk ci maanaam li dal jot réew yi lu rëy ci réew yi maanaam kooku bu fekk fokk rek réew mi gouvernement yeeg yëpp ñu ci ànd taxaw ci taxaw ci ndax dafa nekk lu rëy loolu nag bu Sénégal ci mbagg ñi la nekk ci mbaggu Sidi ak ay ay ay rakam moo tax muy lu ñu war a xool. état bi war a gestu mais ma xel daf ci dal nag wax dëgg yàlla daf ci dal ndaxte président ci boppam Macky Sall moom wax ne may waxtaan nag moom ci mbiru paysage audiovisuel bi loolu ne ma man Excaf groupe bi dama koy jàppale mu ne ma man dama leen jàppale moom ma ko wax ci gémmiñam te ñëw naa boo ko si Diagne mi léegi. wàllum xam-xam ak liggéey bu mucc ayib te jaax yoon loolee nag bu amee jamono ji ci ëttu taskati xibaar bi kenn waralu ko lu njiit gi di Ibrahima Diagne Benbaz moo waral njiitalu. sénégal BSP di sàkku ci nak président général bi ak rakam ñu roy ci jëm joju li Ibrahima Diagne Ben Bass muy ko ma xam man bu baax baax def naa bu dee ci dëkk bile jotaayu xibaar la ca gën a fës bokk na ca cote pétrolier bu yees Sénégal am ko ñi di euh, pencum ndaw réew mi di député yi wate ko ni ki tey donte ñu ci ëpp ci kujje gi ànduñu ca wàllu wa ay coppite am na ca daan ci ànd ak suñu ndaw ñu fa teewaloon di euh, manjoon ay dara dana ca bokkit euh, kii di turu Abdoulaye Diouf sar feñ ca saccage parti wala boo ko siège Pastef ki ko xamle di administrateur boobee parti di biram Souleye Diouf ni ki tey la woon ci trois heures du matin la ñu amal lu ni mel ñoom nag nee nañu wóolu nañu enquête bañ ci ubbi na dana leeral euh, ka ca tàqe ak la ca laale daañu ko jukki ci xibaar dina ci bokket leneen mu ngi aju ci euh, maanaam ONG bi di euh, maanaam publicité ay fësal leneen bokk na ca la ñuy tux ci cigarette euh, Philip Morris am lu mu ca dugal daañu ko jukki waaye bokk na ca pont bu Sénégambie nga xamante ni daloon nañ ko yàggul dara waaye mu mel ni indi na ay gàllankoor ñi yëngatu euh, ci wàllum commerce ñoo ko fësal di ay jafe-jafe yu ñuy dund jamono ji daañ ci ànd ak suñu ndaw mi ci amal ab gëstu bu yaatu ci xibaar yi la na la doon ponk yaa ngoog mbokk yi bu ngeen ñu teeloo ñu dikk ak yéen ci faram gi code pétrolier euh, pétrolier bu yees ni ki tey euh, la ko penc ma ndaw réew mi di député yi wate am na ci ay coppite jëm ci wàllu xaatim yi nañ ko nar amal donte ñu ci ëpp ci kujje gi dañoo ñaawlu boobee code jàpp ni bëri na ci ay euh, dëkk sërëx waral ba ñu jàpp ni ànduñu ca ca la ñu ànd fësal nañu ko du ñàkk xëy na dinañ ci dikkee yéen laataan njaxitalu bi la jotaay xibaar ànd ceeg suñu ndaw mi ñu fa teewala ni ki tey ci suba di manjoon ay daxa jamono boobee ña ñu koy ah, wax jamono ji di turu Abdoulaye Diouf sar feñ ca ñu jàpp di ko njort ne moo sooke siège Pastef bi ñu caxat caxate ni ki tey euh, ci suba ginnaaw euh, trois heures du matin waaye ñoom la ñu fësal mooy ni am nañu xel bu dal ci enquête bañ ci ubbi ne dana leeral ka ca laale ak ka ca laalewul ki ko xamle di administrateur boobee parti di Biram Souleye Diop waxit ne askanu Sénégal la jël témoin ci loolee am ne ñoom nag duñu saaga duñu xaxar waaye bëgg nañu nit ñi wax ci ngir lu ni mel dakk laata ñoo egg ci élection présidentielle yu atum 2019 niki ki tey kenn suñu ndaw doxant ci boobu permanence bu Pastef di suñu ndaw euh, ñu ànd ak moom wala bokk dinañ ci dikk yéen du yàgg dara euh, ci xibaar yi lay doon ñu wax ci leneen mu ngi aju euh, ci li nga xamante ni moo aju ci leneen niki tey ci pencum ndaw réew mi loolu it am na fa muy ki remplacer kii di Khalifa Ababacar Sall xam ngeen ko

set lu ni mel ci suñu ndaw di radiation Khalifa Sall di wey di andi ay réaction ci biir langue politique bi buñu ñu ci kàddoo Idrissa Diallo donon député 12e législature assemblée nationale dafa rek salfaañe yoon ngir nak daal di jël décision bu ni mel ndax nag moom dafa japp ne procédure bi jeexagul. ministre de la justice saisir assemblée assemblée waro na am certitude que d'abord. Euh, ni mu soti euh, procédure bi jeex na mais procédure bi ñëpp wax nañ ko jeexul donc li si def rek dara baaxu si gis ngeen ñu koy bu ñu koy génnee meeru Dakar lan moo amoon dañu waroon dem Argentine pour jël euh, JO de la jeunesse yi te Jeux olympiques yi maire yi ñoo ko organisé li mu bañoon rek mooy eggal kii mu de Buenos Aires ñu ne koy naan ana ana ana meeru Dakar taf taf ñu def pour que ñu mën a changer pour que suy dem mu ànd ak beneen bu bees Ablaye Ndiaye Donon, Natangom, ci 12e législature mom japp assemblée bi ci le la tonku ngir décision bobu responsable apériste di ni député bo xamante condamné Yon, dafa laaj ñu nous assemblée nationale. lettre du ministre mu argumenté ñun une lettre bi les pièces jointes mais su nous dafa am ay pièces jointes ñu argumentation argumentation bureau le bureau se réunit. et aussitôt on applique la loi parce que soo jëlee article cinquante et un dañu ne quand bu nekkee ne fekk ne député dafa am condamnation pénale foofu dañ ko war a ràññee ñoom ci loolu lañ sukkandiku boo jëlee article soixante bu constitution bi dafa tënkaat loolu Idrissa Diallo di ñaawlu tek loxo bi nga xamante ni pouvoir exécutif bi amna ko ci assemblée nationale waaye itam ci justice lu ni mel nak Ablaye Ndiaye bokku ci alliance pour la république mom andu ci ben yoon. c'est l'exécutif depuis que Macky est là exécutif même de les autres régimes l'exécutif le législatif mais il faut reconnaître que sous Wade et Diouf y a eu des lois qui sont venues nit ñi delloo ko quand je prends l'acte 2 de la décentralisation sous Diouf mais c'est venu, ça a été renvoyé plusieurs fois. Mais lui, il a fait voter l'acte 3 en procédure d'urgence. En trois jours, on vote et parti. Il n'y a pas de débat, il n'y a rien. Sa majorité est mécanique. def a juróomi un mais man fàttalikuuma fu ñu woowee def injonction ci ñun ne président moo ne nañ def il buñ la joxee sa yëf li mu doon xalaat la doon wax man la ma doon xalaat laa doon wax ñeneen ñi liñ doon xalaat lañ doon wax moom boo ko laajee da am na ay projet de loi yoo xam ne sax am na ay député de la majorité dañ doon voté contre. gannaaw bu assemblée nationale daal di nag jëlee dogal daal di radier Khalifa Sall poste boobule ki ko fay wuutu moom mooy Malick Gueye jiite ndaw grand parti yi Malick Gueye boobule assemblée nationale daal di koy installé ci alxames bi de. mu nga ko wax nga ko Codé Ndiaye muy Malick Gueye bokk ci grand parti ñi di waa assemblée nationale daal di koy installé ni ki tey muy uutu Khalifa Ababacar Sall ma ñu dàq ca assemblée nationale foofe la ñuy desandi ma junjoon ko sànq muy code pétrolier bu yees jàll na ñooñee di député yi wate nañ ko niki tey ay coppite fës ca bokk na ci nañu nar a xaatime lépp lu aju ci wàllu pétrole ci mim réew daanaka coppite am na ci ci anam gañ ko nar amale donte ci geneen wàll ga ñu fare ci kujje gi di ay député daanaka lu ci ëpp ci boobee code lañ ca dëxiñ wane nañ ni ànduñu ca naka noonu na mu sakkane di ay page yu bëri yu jàpp ni xëy na ci benn bés du leen yomb ngir ñu yër ko xam la ca am di njëriñ jëm ci askan week la ca amul euh, te doon gàllankoor ñu ànd ceeg suñu ndaw teewaloon ñu niki tey ci suba euh, ca penc ma euh, di mañoon ay dara bu jëm ci wàllum loi bu yees jëm nag ci wàllum pétrole ñu duppee ko numéro un deux mille dix neuf war a nag emplacé loi numéro quatre vingt dix huit zéro cinq mu mel ne nag bilee wot moom ca la mu amoon rek moo di. ak jàmmarloo xuloo bu takkarnaase ci diggante député yi nekk ci kujje politique gi ak yi nekk ci pouvoir bi ñoom député yi nekk ci kujje politique gi lañu jàpp rek moo di bile mbir moom dañ ko rek daal di patam patame. procédure d'urgence bi nga xamante ne moom ngeen ko def moo jaaduwul ndax lu toll ci. presque dix kilos mi ngi nii nekk sept documents nekk cinq cent quarante six pages jàpp naa ni kenn mënu koo liir ci benn fan ñaari fan wala weer. yii de tuuma jawriñ ji ñu gàll lépp lu jëm ci wàllum pétrole ak énergie di weddi ba mu set wicc. code bu bees bi dañ ko tëggaat mu war a dugal transparence mooy leeraay avant da nga doon jox. ministre bi munoon na toog ci bureau am jël joxe benn concession astafurlaay benn bloc jox ko benn nit ou benn société léegi gaa mun gi droit di mun a ñëw di am euh, di mun a am bloc donc il faut mu nekk quelque chose de moi moi euh, kii euh, il faut mu nekk entreprise taskatu xibaar yi daa ci koy laaj jëm nag ci wàllum licence ñuy jox waa Total mu cay andi ay tontu. dëgg la ni bu ñu sukkandikoo ci définition bi ñi di waa Total am nañu lu tollook juróom benn fukk ak juróomi junni kilomètres waaye ci weeru mars bi ñu dëgmal Total war na am wala boog mu joxe ci lu tollook juróom fukk ak juróomi junni kilomètres loolu nag la muy wane maanaam fukki junni kilomètres te fukki junni yooyee sax mu dëppook li code bu yees bi fësal. ñu jàpp ni bile wat nag amoon na ci rek xuloo gu takarnaase dox si diggante député kujje politique yi ak député yi nekk ci pouvoir bi waaye ca mujjantal ga loi bi mujj naa jàll ca assemblée nationale li nag di am ci ay at yu néew ngir nag ñu jàll ci wàllum exploitation jëm ci gànjar gi ay dara ñu wax ci wàllu politique turam feeñ na ca ñuy njort ci moom ne loxoom génnut euh, ca la xew ca siège bu parti Pastef ni ki guddi ci trois heures du matin la fa ñenn dugg daal koy caxat caxate yóbbu fa koppar ya ñu fa fekk naka noonu it daanaka lépp luy verre ak i chaise dañu ko tojate lu ni mel administrateur parti bi eh, di eh, Birame Souleye Diop eh, jàpp ni naka doon sooke ñoom kàddu yu ñu yëkkati ak it ka ñu tudd Abdoulaye Diouf saax lañu teewut ñuy fësal ni wóolu nañu enquête bañ ci ubbi di xaar ngir xam ña ca taqe ak ña ca taqewul naka noonu it ñuy sàkku ci askan wi mu leer leen nii ñoom du ñu xeex du ñu dóor waaye te bëgg nañu ñëpp mu biir leen ni am na genn ko xaxar goo xamante ni daanaka ñu ngi ko yëkkati jëmale ko ci seen ko jëmm wala bokk ci seen ko parti te loolee jàpp nañ te war na mën a am ci réew mu mel ni euh, Sénégal ñu ànd ceeg leeral suñu ndaw di may mën a bu ñu amaloon ci permanence coalition taxawu Sénégal tey jile kon ñu daal di cong euh, siège Pastef les patriotes ba tax na kon seen kàddu turu Abdoulaye Diouf Sarr di maire bu Yoff ñu nemmeeku ko ci bile cong loolu. ñi fi ñëw ñi fi ñëw dañoo fekk agent bi nekkoon ci bunt bi ñu wax ko ni ko moom moo wax c'est une déclaration qui a été mentionnée dans la déclaration au niveau de la gendarmerie dañ ko wax ne ko seen siège bi lañ bëgg mu jóge fi ndax fii Abdoulaye Diouf Sarr moo ko moom. loolu lañ wax ñi ñëw fële ci meeting bi tamit tur Abdoulaye Diouf Sarr man xaw ma Abdoulaye Diouf Sarr mais tur la bu fi génn man xaw ma Abdoulaye Diouf Sarr mburu la xaw ma mburaake la mais li wërte wër mooy joxe nañ fi turam man xaw ma ko. joxe nañ fi joxe nañ fi turam man xamuma ko xamuma ko vraiment xamuma ko donc tur boobu lañ fi joxe xëy na kilifa la xëy na responsable la xëy na bu enquête amee dañ xam kan la bu fekkee moo leen yónni enquête bi dina ko leeral bu fekkee yónni leen ni tamit dina leeral ni am na ko joxe turam te war woon joxe turam. gannaaw cong googee Pastef mu ne fas yéenew ci ti loxo jamono ji lépp lu muy def moo di bàyyi yoon def liggéeyam ndax ubbi nañ ci ab enquête. wóolu nañu nag gendarmerie bi nga xam ne moo ñëw fii di def liggéey bi ndax xam nañ seen professionnalisme am nañ ñun yàqin wér ni ñi def lii incha allahu rabbi gendarme dina teg ci ñoom loxo te dinañ yóbbu ci kanam attekat bi ñu atte leen teg leen daan yi nga xam ne bi moom la yoon préparé pour circonstance bu mel nii gannaaw loolu ñu ngay woo képp ku yeewoo ci réew mi ngir mu artu ci violence ñu nemmeeku jamono ji ba fayantoo jub ñu naan kaay leen ñu waxtaan li fi ni li fi xew nag xam nañ ñan ñoo koy def déggu leen fi PDS song APR déggu leen fi réew mi song APR déggu leen Pastef song APR déggu leen benn parti de l'opposition mu jóg yëkkati doole ne ma ngi koy jëmale ci suñu naataango ci suñu ci suñu suñu naataango yi nga xam ne moom lañ bokkal moom lañu bokkal le champ politique. tey nag nous on le subit yéen a ko gisandoo ak ñun bëgg nañu ngeen wax ci mu leer ñu xam lan moo xew ci réew mi bu fekkee nag dañu bëgg bàyyi suñu bopp ne yéen yéen a bëgg a dugg ci langue politique gi rayante leen nañ préparé yombal ñu njëgu jaas yi ku ne am sa 1000 francs dem jënd sa jaas ñu daggante ay bopp mais Sénégal du dëkk bu ñuy dóorante ay jaas cong yi ñuy cong jamono ji permanence opposition bi muy gën di bëri ñu koy nemmeeku ba tax na ñoom ñi nga xam ne ñoo féete ci Pastef ñu ne gis nañ ni xeex dëgg bi jamono ji ci urne yi la nekk wante nekkul ci violence yi

mënal seen bopp te loolee ñu jàpp ne faw mu jaar ci tàggatu gu war waaye te gunge leen ci wàllu financement mu mel ni bi la xibaar dina bégloo ñi nga xamante ne ay ndongo lañu xëy na pare nañ seen njàng di wër li nga xamante ne mooy xëy di programme bu jëriñ juñ dénk wàllu njàng mu kawe mais rafetlu lañ ca dëxëñ lañ ca jublu wala bokk lan mooy jubluwaay boobee programme dikk nañ ci nu mu gën a yaatoo ci kanamu suñu ndaw di Philomène Tine

entrepreneuriat mooy nan lay nit di taxawalee këru xëy di joxe tamit xam-xamu nan la ñuy tabaxee këru xëy te di ci tette xale yi nga xam ne dañu am seen lijaasa ci daara yu kawe yi. ci noonu nag programme boobule daal nañ koy jagleel ay laboratoire yu bari te mucc ayib. dem naa nag nemmeeku yi fi nekk gis na laboratoire bi nga xam ne énergie la.

jaarale ko ci PSEG njàngale mu kawe mi nag dina mën a dugal loxoom ci liy saafara ñàkkum xëyu ndaw yi. lii day tax ñu xam ni mbiru xëy li ko mun a faratal ci suñu réew mooy daara yu kawe yi. léegi nag réforme bi loolu la indi. PSEJ daal dinay dimbali nag lu ëpp ñaari téeméeri ndaw programme boobu day gunge ndaw yi am mëbët projet wala sax ñu bëgg a doon entrepreneur ngir ñu mën a taxawal ay bërëbu liggéeyukaay yu sax. Philomène tin xeex lii di immigration clandestine Sénégal lëkkaloo ceeg Union européenne ak waa Espagne tëgg ñaari projet yu mag jagleel ko ndaw ñi moo xam ñi nga xam dañu nekk bitim réew bëgg a wala boog ñi nekk ci réew mi euh, ci ay xeetu projet yu ñu amee ngir ñu war leen mën a euh, financer loolee jëm ci xeex loolee di immigration euh, clandestine ñu boole ci nit ñi nga xam te ay kilifa diina lañ di yëngatu ci wàllu aada ak cosaan ngir ne seen kàddu jotal ci askan wi ñu mën a xam njëriñ la mu làmboo boobee projet moom jëwriñ ju wàllu mbirum xew di maître Sidiki Kaba yamu ca lu ando bobé ñu fësal seen diggante ak seen partenaires yooyu japp ni dana gëna a dëgëral yeneen xeetu coopération yi xamante ni daanaka nas nañu ko lépp rek jëm ci dooleel yëngatu yu ñu amal ci fànn yi ñu leen dénk di ay mission di kàddu yamu yëkkati moom maître Sidiki Kaba ñu teewlu ko suñu ndaw di arme bi tey. message qu'il faut retenir. message euh, bi ñu war a jàpp tama jàpp ni moo ñu dajale loolee tax sax ñu sóobu ci bi biir projet ngeen ñu am ci ndam waral may jeexal sama kàddu ngir wax ni eh, engagé wu naa ngir fexe bi le projet jaar ci yoon te it ñu am ci ndam naka noonu it ma leen di bégal ni njiitum réew mi di le président Macky Sall mu ngi ñu ciy ñi maa ngi woo acteur yi nga xamante ni ñoo ci bokk moo xam ñi yëngatu ci politique gu ndaw ñi naka noonu ci wàllu suqaliku ci territoire bi ak it association yi ci wàllu migrant euh, presse beeg secteur bi ak euh, ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi yëngatu ci wàllu bi ñu fexe ba indi ci li solidarité nationale jëm ci gën a ñi nga xamante ni ñoo ci wàllu wi naka lépp loo xamante ne ci ressource financière ci wàllu xam-xam waaye it li nga xamante ne mooy sénégalais ña nekk ci bitim ak ñi nga ni sax nañu ngir ñu bi le projet yegg ci jàmm. au Sénégal. ab gëstu la bu bàyyeekoo ci public AS di def jamono ji coow ci réew mi jëm ci Philip Morris.

mu doon ab scandale boo xam ne lëmb na réew mi lu ëpp ñaaxi fan li ni mel nag bettul listab ndax yàgg na wax nguur gi mu moytundiku ci li nekk ci pon bi ñuy defaree fii ci Sénégal. yàgg nañu gis wala yàgg nañu jot ay rapport yuy wane ni industrie yu tabac dafay faral di nëbb li nga xamante ni moom mooy li muy def ci cigarette donc ñun xamoon nañ ko bu yàgg parce que xam nañ ci biir cigarette bëri na ay substances yoo xamante ni donc ñu ngi ci. donc scientifiquement ñu prouvé. suñu sukkandiko ci article 4 bu loi 2014 képp koo xam ne day defar li nga xam ne cigarette war na yónnee at bu jot ay xibaar yi jëm ci li muy defaree pon bi li ni mel defuñu ko ndax jumtukaay ñu ñuy tëral jëm ci wàllum dëggal yoon dafa néew wala politique yi amuñu volonté liñ ci mën a xam daal moo di ñiy defar li nga xam ne cigarette am nañ doole loolu. na ay fay fay yooyu mooy. que suñu environnement juridique moo xaw a faible du Sénégal rek mais ci pays africain yépp loolu mooy waral industrie tabac ñu may ko doole goo xamante ni mën naa wax ni moom moo koy taxa def lu ko neex fay ay taxes te taxes yi ñuy fay daanaka bariwul société yu koy fay ci suñu ay réew loolu mooy waral peut-être suñu ay njiit dañu xaw a complexé ONG Public ay moom nag moo ngi fesal ni que produit ñuy jaayee fii ci Sénégal wala ci Afrique am nañ lu tollook benn bu ñu toftal ñaar fukk juróom-ñetti milligramme nicotine cigarette bu nekk te yi ñuy jaayee ca Europe am nañ rekk lu gën a néew benn milligramme li ni mel nag dina tax ba ki nga xam ne da koy jëfandikoo du ko bàyyi. moom mooy tax tuxkat bi su commencé tux du mën a bàyyi da koy téye day accro. day dem ba vraiment nekk ki nga xamante ni comme esclave pour industrie tabac objectif indi industrie tabac mooy fexe ba tey tuxkat yi fexe ba vraiment seen chiffre d'affaires di augmenter. suñu sukkandikoo ci listab tey ji jot na ñu taxawal ay jumtukaay yoo xam ne dinañ mën a saytu bu baax li nekk ci pon yi dafa fii ci réew mi waaye ñoomee tamit ñu respecté yoon. Ndeye Fatim loo ñu wax ci pont bii di Sénégambie te ñu dalloo ko bu yàggul dara doon mbégte ci ñi nga xamante ni ñooy faral di dem Casamance ak it Gambie jàpp ni ak jàppandal dëggantaan la ci wàllu demak dikk bi ginnaaw loole am na ñenn ñu ciy loru te fësal nañu ko mooy ñu dëkkee ca gox boobee jàpp ne bi ñu ko dalloo ak léegi daanaka ñoom ñooñee di yëngatu ci wàllu commerce daanaka dafa taggatémbe ngir jafe-jafe yi ñuy dund donte nag euh, tooguñu rekk di ko xool am na yeneen xeetu solution yi ñu ci indi waaye teewut ñuy fësal seen naqar googe ci app gëstu bu yaatu boo xam te suñu ndaw defal nañu ko ca pont Sénégal mbeek la ko wër ña fay dund ak jafe-jafe yooyu ñu am di Lansana Diandi Farafeñe ci réew mi Gambie xew-xew bi fa daan am dafa mel ni wàññeeku na bu baax a baax. commerçant yi dañoo tëj seen boutique yi ay Aïssatou Diallo nag kenn la si nguur gi autorisé ñu ibbi seeni cantine soxna si yàgg loolu ci bàgg Gàmbi bile moom nag ci jamono ji ab njàqare la am ndax lu muy jaay jaratul. jaay bi da doon dox waaye pont bi bu mu commencé ba léegi jaay bi doxatul normal yenn saa yi xëy nga paas sa paas bi yëpp 500 la ñëw 250 ñibbi 250 da ngay paas nga ñëw yenn saa doo jaay 500 bu mot sax. ba ñu tabaxee pont bi ba tey moom lu muy am ma wàññeeku na bu baax a baax moom ak commerçant yi fi nekk si jamono jile xamatuñu li ñuy def. damay jaay mbaaxana dama jaay confection yéere. lan doon am dootu ju ko am moom. loolu moo xam la dootuñu am lan doon am moom. bu ñu ñëwee duñ taxaw ñow rek jàll la. fii pompe bu paree moom xam ne amatuñu yaakaar fii fan yii yëpp jaay ñu amuñu dara saa yi dañoo ñaan nguur gi ñu jàppale ñu ñu am dara. fii lañu xam man sama baay mi ngi fii sama yaay mi ngi fii si bag bi fii lay jaayee. njàqare ci ñenn yi mu doon bànneex ci ñeneen yi pom bu ñu tabax ci traversé Gambie bi dafa doon mbëbët ñu bari rawatina ñuy jëfandikoo corridor Dakar Ziguinchor. boo xoolee ñàkk amoon pont bi moo indiwoon woon batalo amoon surchage ba ay nit ñàkk ci seen bakkan. depuis 1960 bu ñu amee indépendance ba tey ñun Casamance pour ñu dem au nord dañuy galérer kon tey su ñu amee lii lu dul sante ko yàlla rek. ñun dañ carburant amul essence amul gasoil amul Nous xam une essence ak gasoil ci dundinu doomu aadama tey ñu toog la amu amul parce que citerne yu euh, carburant Dakar dañu ñëw ba bag ba tardé fa yàgg fa camion mango jógee Casamance ñëw ba fii def fi ay fan ay semaine mango nëpp mu tuur ko ay millions donc loolu yëpp tey dafay jeex te ñiy jëfandikoo tali bi lee ñu bëri ci région naturelle bu Casamance la ñuy jógee région boobu sax jàpp na ni ci jamono jilee koom-koomam dina yokk bu baax a baax ba ñu sukkandikoo ci transporteurs yi. boo mën soon a jógee Kaolack tey war a fanaan fii sa waa kër mën fee reer mën fee ndékkee nga fanaan fi yow sa bopp soo jógee Kaolack war a dem Ziguinchor nga xëy rek jàll dafay gën a yomb ci yow dafay gën yomb ci client euh, ñàkk gi ñu doon ñàkk seen xaalis dootuñ ko ñàkk en tout cas lancé bi ñuy lancé daal ñi ngi wax chauffeur si ñii ñu xam lii ñu gis nii ñuy ñaan bépp safaru Sénégal bu fi daw na nga am yar na am teggin na nga respecté autorité gambien yi. oto yi bu njëkk ñu ngi doon def euh, nit ku nekk 200 francs oto yi ñu ngi leen doon euh, laaj mille francs cette place bi minicar bi ñu ngi koy laaj cinq mille francs. Euh, Euh, bu fekkee ne berlier bi la oto bu mag bi ñu ngi koy laaj quarante mille francs ça dépend du tonnage bi rek quoi ak diisaayam ñoom loolu lañ doon kii mais bu fekkee tamit mun nañ ko wàññi bu fekkee ne comme ni ñu ko defee 3000 francs ci cette place bi bu def ko 1000 francs c'est baax na dafay gën a baax ndax ñu nit ñu mun tey gis suñu bopp ginnaaw koom-koom waa Casa Sport si jamono ji nekk juróom-benneel ci classement championnat national ñoom nag si jamono ji am nañu yaakaar ak pont bi am beneen coupe nit ñi lañuy fàtte ni Casa Sport bus lay jël pour traverser jëlul avion kon tey bu ñu amee pont bi man pour man tey dina am lu wàññeeku ci coonowu Casa Sport ak club bi ak supporters yi tey mun nañu permettre tey ñun tam suba képp ko xam ne supporter nga mun nañ def caravane tey dem di supporter équipe bi Ziguinchor parce que soxla na ko trop. comme pont bi am na mu gën a oyof ci moom victoire yi di gën a bëri ba ñu am coupe ñu jaar ci pont bi dem célébrer ko Ziguinchor. ci diggante Sénégal ak Gambie benn askan ñaari réew ak pont bi nag ñoom fas yéene nañu rataxal seen diggante ginnaaw Adama Barrow jël nguur gi jëlee fii dictateur Yaya Jammeh ak moom nag Gambien yi am nañu yaakaar bu rëy ngir sukkali seeni koom-koom business bi war a nekk